là n'est pas le débat là n'est pas le débat man je préfère avoir lu ëpp que bañ a am lu mat. Mhm. actuellement on a un déficit énorme comme li tubaab naan les excès ne sont pas. non non lu si xam tama la xam tama la tey jii euh, on a dans la santé c'est des métiers. Mhm. c'est-à-dire santé ku chômer yow la neex cest dire ki am diplôme chômer yow la neex je le dis toujours mois j'ai un métier j'ai pas une profession. c'est-à-dire quartier ba nga dëkk sax nit mën na la fekk sa kër sax nga xool ko mu teg ci yow dara même boo ko laajul dara sax mu génn jox ci teg ci sa loxo dara donc ñun ci foofu la ñuy wax on a qu'à former les gens d'autant plus que formation du doy tey jii bu yaa ngi wax ci problème formation revenons sur le sur les spécialités tey jii am nañ quatre UFR en santé am nañ UFR à à Ziguinchor am nañ ko à am nañ ko à Saint-Louis am nañ ko à Dakar mais tey le problème majeur qu'on pose on te dit affecté nañ benn ki gynécologue à Kolda gynécologue bi toog fa 6 mois ne mënut fa toog dem yoonam. ñu ne la amuñu neurologue ñu ne la amuñu neurochirurgien alors qu'on a posé mooy li ma lay wax sax ci affaire évacuation ambulance yi. Mhm. tey jii parce que soit la personne lan koy fay moo doyul. te mu xam ne fii à Dakar mën na liggéey li muy liggéey foofu en en en mois mën na ko liggéey en deux jours fii à Dakar. Mm-hmm. il préfère venir ici être dans le privé. Mm-hmm. voilà donc vous créez des conditions néew ma nag parce que ku dem ba ba jàng ba choisir la santé ñun bu ñu choisir c'était pas pour l'argent sérieusement mm-hmm. parlant. d'abord c'est pour sauver sinon on serait dans le privé parce qu'on a les moyens on a formé même des jeunes yoo xam ni ils ont ouvert leur on pourrait le faire parce que on est au service public. comme IFR yooyu am na ñoo xam ni dépaysé moo leen moo la tax mënuñu fa toog parce que tàmmuñu zone yooyu. tey jii IFR yooyu mën nga développer am na booyu dëkk Ziguinchor am na booy dëkk Sédhiou am na booy dëkk Missirah Sirimana Khossanto dans le Kédougou mais ñooñu boo tey tey nga ni tey jii d'ici cinq ans je veux avoir pour cinq spécialité ci domaine gynéco neurochirurgie ak lépp ma def ko ay postes régionalisés mm-hmm. ma former leen dans la région d'ici quatre ans ou cinq ans l'hôpital la zone de Ziguinchor ne souffrira pas en disant que aw ma lenn parce que ñooñu ci zone ba la nekk loolu on l'a on l'a tellement proposé dans ce sens ça permettra au moins dootuñu wax ne affecté nañ nit fenn demul. ok c'est des c'est des c'est des propositions parce que on n'est pas uniquement pour critiquer parce que nous sommes du système on a écrit dañ ci bind def ci ay mémoire wax nu système bi war a mën a doxee dans ce sens.